siyaare waa télé TT TV li euh, siyaare Moul Seck mi nga xam ni mooy as mooy présentateur yi ci Thiès euh, ga yëpp di siyaare Xarim Soumaré ak télé bi yëpp leen ñaanal jàmm euh, di présenté wu comme man maay trésorier bu association ATS di association terre estilis du émergent du Sénégal waaw waaw le 16 nag dañ ci préparé suñu assemblée générale boo xam ni euh, Dakar lañ ko sose woon muy dox di dox ban ni dañ koy yaatal ci 14 régions yëpp yàlla dogal ñun Thiès ñooy njëkk def suñu assemblée générale euh, mu ñu jàppoon ko la ñu jàpp ko le 16 nag euh, ci ci départ kii conseil départemental fa lañ ko jàpp a 5 heures incha allah waaw ah, incha allah waaw am na candidats yu ñu ko ne waaw yoo xam dañ ci teew ku mel ne Mamadou Mangane dañ ci teew ak euh, Yankoba Diatara dañ ci teew ak ñeneen ñoo xam tamit ay candidats lañ yoo xam ñi ngi xëccoo maire bi dañ ciy teew euh, ndax boo gisee loolu comme secteur secteur lañ nekk. te ñoom tam ñooy ëllëg si ñooy ŋànk réew mi ŋànk ŋànk gox bi nga xam ne ñoom lañ seqal loolu te ñun mun ñoo dem sans ñoom te mun ñoo dem sans ñun loolu tax ñu seq loolu invité leen ñoom ñëpp pour ñu xam lan moo ñu tax a jug ci assemblée générale bi. Euh, li ko taxaju nag bari na parce que comme secteur informel lañ nekk tey kenn ku ci nekk la liggéey rek te nga moo si sutura te ñoo ci di yëngu boobu ba tey li si gis suñu bopp di sant yàlla. di ci former ay ndaw yoo xam itam tey mën noo nekk ci leen nekk agression nekk ci leen waaye ñi ngi leen former ñu am lu ñu mën a suturloo mën a am lu ñu mën a téye seen ak seen diine loolu nag dafa fekk ne xale yi léegi ñu ci bëree bëree bëri jàngatul métier ñu ci bëri ñu ngi ci yeneen parce que yàkkamti nañu am te am li koy li koy li koy fondement mooy xam-xam ba tax na loolu moo tax ñu motiver def ensemble daal boo xam ni képp kuy téyër ci secteur informel bi ñu féete muy téyër ñu ñu bëgg a booloo jéem a waxtaan ak xale yi nga xam ni ñi ngi découragé pour métier ak xale yi nga xam ni ñi ngi ci métier mi leen encouragé looloo tax ñu taxawal loolu euh, pour wax la ñu góorgóorlu parce que dañoo seetlu ni métier dafa dafa dafa commencé raaf raaf googu commencé raaf nag xëy na am na ci ñoo xam xamuñu ko am ñoo xam xam nañ ko dañ koy fooyee te métier mooy lépp ku ko ñàkk ñàkk nga lépp parce que métier arme la looloo tax ñu taxawal lii pour gën a informer xale yi ba ca des taxawal ko tamit ngir suñuy seqal euh, dëkk bi nga xam ñoom ñooy suñu autorité ñu gën a xam suñu gëdd ci ci ci ci ci gox bi. parce que tamit dañuy liggéey nekk euh, di fay lépp lu war a fay ci dëkk bi waaye amuñu benn droit boo xam ne mën leen koo kaas te ba ma dee téer ba léegi musuma gis téer bu grève ñun ñu ngi dox suñu waar di fay suñu lépp lu ñu war a fay des ñu teg charge yu métti yoo xam du leen fu ñu ko jooyee. looloo mu ñu loolu ñu motivé ba tax ñu taxawal taxawal loolu lii bëgg def assemblée générale ba ñu xam ni ñun am nañ gëdd ci réew mi ba ñu jox ñu suñu suñu suñu suñu place ci réew mi loolu daal moo ko bokk nañ ci la ko wundu incha allah waaw waaw le 16 maa ngi jox rendez di invité autorités yi comme ni ma ko waxee di invité samay soxna samay am di jàmm samay dëkkandoo samay emprunté yi nga xam ne ñoom laa nekkal di ànd ak liggéey ñoom di invité képp koo xam daal Euh, mas nañoo séq teraanga mas séq ñaw mas séq rafet jàpp naa ne ñëpp lañ ci tey incha allah di gërëm baax télé bi jërëjëf xaadim jaajëf waay jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar man la Alioune Guèye ñu gën maa xam ci njëye euh, président ACS e bu kees ñu ngi nuyu sunu mbokki téer yëpp di ci jiital euh, sunu président maam Cheikh di ci teg Pambaw mi nga xam ni mooy sunu trésorier mooy sunu vice président di nuyu mboolem membre boo xam ni yaa ngi sunu ginnaaw euh, di euh, nuyu ñëpp di leen xamal ni ñu ngi waajal bis bu am solo ci ñun muy le 16 di dimanche bii ñu dëgmal di ko defee ci conseil régional fii ci tout près mairie bi. di ci woo téyër yëpp ñi nga xam ni sunu kàddu agsi na fa ak ñi nga xam ni sunu kàddu agsi fa di leen xamal ni astes nekkul astesu kenn astesu téyër yëpp la amul xaaj ak seen téyër bu mag ak bu ndaw képp ku dégg communiqué bi wala nga dégg ku ko dégg xamal ni te sunu kàddu agsi wu fa sunu lettre agsi wu fa loolu mooy sa invitation nga ñëw ñu joxante ay loxo bokk ndey ak baay liggéey parce que ñu bokk lu ñuy def euh, lenn waru leen a xaajale dañoo war a bokk ànd lépp lu ñu bëgg ñu xëccal ko seen bopp ba jot ci buñ ci jotulit ñu góor góorgóorlu xool ku ko mën a jot ñu jox ko loxo pour mu jotalin ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah président euh, mam Cheikh mam Cheikh mbay way waaw boobaak léegi war naa mat euh, trois ans war naa mat trois ans waaw mouvement bi li ko tax a jug mooy euh, informer li li li ci jiitu mooy informer ndaw ñi ci wàllu métier mi parce que souvent dañoo gis ni lii euh, fii dix ans ci kanam métier mën naa rafle parce que xale yi ñu ngi ci jakarta yi aussi li li ñu war a def seen bopp yi defuñu ko ci aussi nouvelle technologie bi nga xam ni mi ngi ñëw xale yi dañ cee war a bàyyi xel ba bu ñëwee ñu war ko mën a jariñoo li li gën a sabab mbooloo li gën a sabab mouvement bi loolu loolu loolu bokk na ci loolu bokk na ci waaw invité yi bari na euh, lu ci bari nag euh, mi ci loxo bokkar si parce que moom moo yor wàllu organisation bi waaye nag li ci euh, ëpp doole tam xam ko rek mooy Yankoba Diatara invité d'honneur la Massaly invité d'honneur la Ablaye Dieye invité d'honneur la aussi Cheikh Seye invité la bu am solo ci ñun parce que moom kenn mënu koo génn ci matière euh, bi bi ñu nekk daanaka moom mooy bopp bi sax Cheikh Seye waaw moom mooy moom mooy moom mooy bopp bi parce que am solo la Cheikh Seye euh, moom invité bu am solo ci ñun parce que li nga xam ni euh, ñun dañ cee nekk moom da cee nekkoon ay année ci ginnaaw mooy former xale yi aussi tàggat leen ci li nga xam ne moo leen di jariñ ëllëg loolu nag ci lañ nekk comme ci lañ tàmbali ñun tamoom ci la nekkoon kon dañ ko ci jox loxo bu baax a baax di ko ci xaar aussi Saër Mangane invité la aussi ci ci journée bi wax dëgg yàlla am na ci taxawaay bu rafet rafet rafet euh, maa ngi daanale foofu kàddu gi am nañu mbégte bu baax a baax a baax a baax euh, lii ngeen def it wax dëgg yàlla seet na suñu xol parce que wan ngeen ni télé bi tey yëpp ñoo ko bokk biñ ñëwee ci yéen it yombalal ngeen ñu ko aussi am ngeen disponibilité pour fekk suñu atelier yi intervenir donte nag xaw nañoo euh, am lu ñu naqari tuuti ci kàddu gi parce que euh, dañoo xaw a tawat tuuti ñu ngi koy jégalu aussi di leen remercier bu baax a baax di ñaan yàlla euh, fii télé yi àgg seen télé yi bi àgg fu ko gën a kawe parce que télé bi suñu télé la ñoo ko moom ndax tele téer yi la télé téer yi nag ku ci génn sa bopp yaa ci génn sa bopp mais nag télé téer yi téer yëpp bépp téer ci nga bopp te loolu vraiment bi ñu ñëwee seet si leen rek wane ngeen ni télé bi suñu télé la kon ñu ngi leen ci remercier di leen encourager di leen ñaan euh, ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp ba yàlla yóbbu ñu ci bis bi ak jàmm ak salaam. salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku Thiès ñoo ngi suñu mag bi nga xam ne té té téeri la man sama doomu nday Xaadim Thiès ma tey fii si Golé la Couture wax ji waajal benn événement bu ñuy wax euh, association boo xam association national suñu président national du président Mame Cheikh ñu koy nuyu au passage suñu coordonnateur fii Thiès mooy Ndié ñu koy gën a wax si Aline Gueye suñu secrétaire général di Papa Mbow suñu trésorier di nekk Dame mbay mooy loolu loolu mooy loolu ñu waajal bis bu mag boo xam ni incha allah rabbi la see ñu bàyyi xaalim laaj waaw xaalim en tant que man maay bokkal si nekk président de l' organisation e bu cees affaire ñoo ngi si boo xoolee salle bi macha allah sotti na lépp macha allah fu mu doon gan rek la ñuy xaar ñoo ngi koy defee euh, président conseil régional bu cees foofu la koy defee xaadim à partir de 17h lay commencé waaye ñoo ngi ko gars yi 16h incha allah rek bëgg na ñëpp teew 17h ñu commencé tànk daal am ñuy jógee Louga am ñu war a jógee Matam ñu war a jógee ba Louga ak Dakar ak ay Diourbel war a ñëw war a amee gan ñu war a teel a ñibbi te xam nga dimanche la ñibbi day xat ñu bëgg teel a def teel 17h balaa 19h 20h ñëpp mën a ñibbi incha allah rabbi waaw. non membres yi maximum ñun kees fii rek y' a 200 et quelques membres ñu si biir après sax bureau bi ko war a lazawaat parce que boo xoolee bureau dañu ko def bureau bii ne effectivement pour liggéey rek pour événement bi. waaw après def si la ñuy yaatalaat affaire bureau bi gën ko yaatal di si invité waa ñëpp daal incha allah mooy li ma wax mooy li ma wax national la. xam nga station yàgg na bëri it ñaw téer yi bëri na fi maanaam bii national la boo xoolee mooy maanaam waaw gisoo maanaam waa maatam waa Diourbel waa luga waa fatik boo xoolee tànkoon waa Dakar ñoo ngi si bii national la bokk boo xam GIE boo xam Thiès la nekk yem Thiès bii national la boo xam ni carte yi war naa la ko démb gis nga ko boo xoolee station boo xam la yemul Thiès rek quoi dafa yaatu national la quoi. am na association yoo xam bokk nañ si yu Thiès nii am na yoo xam sama gars yi bokk nañ man moom dëgg la yàlla bëgg musuma bokk benn association c'est la première fois ma bokk association ndax man xam nga rek tànga métier métier la boo xam ni ñun taa bu ñu tombee dafa xaw a doy waar xaadim mooy li ma la wax te gis nga fu ma nekk yaa ngi jógee marche ñu fekk ma fi sama atelier si rond point course bi kon bokk ma marche di bàyyi association boole ma ma gis sama int ma gis sama bopp gis si njëriñ moo dama dugg si quoi loolu moo tax ma bàyyi lépp dugg si association bi ma c'est pas dugg ñu dégg ma benn poste boo xam ne yombul yomb na ñu dégg ma lépp luy organisation ma nekk si non loolu moom tax ñoo xaar parce que yow xam nga ma yow mii di ma interview yow xam nga bokk na maa yow su ma gisoon ngay dugg si kaam ma téye sa su ma gisoon nit ñëw si yow jël paaka ñan laa def ñaaw ma téye ko dafa dëgg yàlla dafa mu sarafet su c'est parce que bu ñaawoon du dugg fii tey yi di kii ñun association ma la rek nit ku ne géej ku ne mën na dem yow sa gaal dem nappi ku ne li ngay nappale sa kër nga ko yóbbu mën nañoo bokk benn benn ndab ku tibb sa gémmiñ lay def assistance yi mën a nekk mille assistance waaye ku ne teewul li nga war a liggéey li nga gën liggéey li nga war a liggéey man noonu laa ko jàngate xaalim waaw waaw waaw di invité képp ku téye sio rek ak képp kuy ñawlu kon invité naa Sénégal xam nga moom téer moom li ma la wax rek di woon ak gars yi si sañse yi ñu ñëw ku fay ñëw xam ne téer ñoo woote parce que b ngeen di xewee téer ñooy ñëw ñooy baax ñu mën a xam di sañse mariage noonu ko bu téeri xewee war nañu fa sañca war naa mën a feeñ xaalim yooyu tubaab nag suñu sañoon képp ku ñëw doo yu tubaab ndax téeri ñoo xewle muy jigéen nan laal taybaas yi laal tini gi laal grand boubou yi góor nan laal trois pièces laal xaftaan laal amazonzo yi costume africain ñëw ñu xam téeree xewle xaalim di la invité di invité seen président di invité seen télé bi ah, parce que li ngeen def yombul Thiès bëgg naa gars yi bàyyi leen xelit teg leen loxo ndax li ngeen def ni xale ngeen jël àll investir bëgg naa autoriser Thiès yi geestu leen parce que li ngeen def yomb lañ doon jël di ko di ba Dakar yéen fexe créé ko moom kon na leen gars teg loxo am na solo quoi di leen ñaan télé bi tey yàlla mu dem ba nekk ba nekk si fi ngeen mu kawe seen jot ci barke yonent bi quoi di leen invité di nuyu sama caméraman bi nga xam ak koo xool xam ne gentleman la di ko wax rek moom maa ngi ko invité quoi di invité bis laa xaar woo leen woo Thiès gépp képp ku dag sooy rek fekk bis bi quoi ngi leen di nuyu di leen siyaare di présenté wu ma la pambaw borom jum couture nekk immeuble jëf jël di leen wax ci turu ACES bis bu ACES di organiser boo xam ni le 16 la conseil régional en face rajo Dunia ñu ciy woo sunu bépp mbokku téer bu yor ciseau di nas puso ñu ngi ko ciy woo di ci woo suñuy clientèle di ci woo suñuy am di jàmbu bis la boo xam ni nag dañoo war a taxawal benn assemblée général boo xam ne ki turu ACES la ne ACES nag li mu coiffé dafa bari ACS bu mag bi mu ngi dakaar am na Thiès am bu toutes les régions ACS am na fa le 16 bi nag ñu ngi ciy woo sunu mbokku tailleur yëpp di leen invité di bëgg ñu ñëw ci bis bi di ci woo sunuy clientèle di ci woo sunuy am di jàmm di ci woo ñëpp la 16 bi di muy dimanche kon ñu ngi leen di jaajëfal waa ñu ngi leen di wax ni bis boobu invité yi bari na parce que képp ku nekk Thiès képp kuy homme politique bu nekk Thiès invité nañ léegi te bu soobee nga ñëw ci bis bi bis bi dina bari mbooloo asses bu Dakar dinañ ñëw incha allah bépp tailleur bu mag booy dégg bu nekk Dakar dina ñëw ci bis bi yeneen raison yi tailleur yëpp dinañ ñëw kon ñu ngi ci invité sunu mbokk yëpp ci bis bi ñu leen di jaajëfal jërë ngeen jëf mbokk yi maa ngi lay nuyu di leen ziar di ñaan yàlla sama message fekk leen si jàmm di leen wax man maa ngi tudd Manoumbe Dioum di tailleur styliste modéliste di ñaawee fii ci marché Grand Thiès ñu taxaw benn association bi nga xam ne nationale la association bi mi ngi tudd ACT association bi nag ñëpp ñu ngi ci biir waaw du yemul kees rek la am na ci région yëpp ñuy def sunu lancement ñuy def sunu lancement dimanche dimanche le 16 la le di tàllal ñëpp loxo di leen ñaan nag na ci ñëpp participer affaire bi fii la conseil départemental de Thiès waaw fu mu toll mouvement bi dañoo jug pour jàppale tailleur yi waaw lépp li nga xam ne dafa nekk ci jafe-jafe tailleur yi ñu xool ñu ngi koy saafara muy ci côté sociale ci côté matériel maara day taale dara mën naa dal benn mbokku tailleur ñu xool nan lañ ciy taxawoo ba mu saafaraw partenaire wala. pour le moment nii amaguñ perte partenaire dañuy demak suñu propre moyen waaw tout récemment rek fexe nañ ba affilié wu CNTS si Modou Giro waaw fu mu toll nii affilié si Modou Giro waaw. pour le moment ñu ngi si 200 membres. 200 waaw. Ah, ku ci bëgg bokk bon si bëgg bokk da ngay ñëw mm, jënd carte de membre. carte membre bi ñu ngi koy cinq mille francs waaw. waaw am na am na numéro contact mën nañ ma contacter man 77 448 wala nga contacter le coordonnateur bon numéro mu ngi fii le coordonnateur ñu gën ko xam si. 77 575 15 56. 77 575 15 56. mouvement bi da ngeen a jóg pour ñun concurrence suñ kenn concurrence suñ kenn dañoo dañoo ñëw pour ànd ak mouvement regroupement des tailleurs de Thiès ñu bokk liggéey bépp mouvement bu fi nekk di tailleur bokk si ñuy nas posit puso machine ñu ngi lay tàllal loxo ñun ay concurrence taxu ñoo jóg. liy sukkalu métier bi moo ñu tax a jóg liy yombal suñu formation yi. moo ñu tax a jóg li nga xam ne ku ku ñu gis respecté ñu looloo ñu tax a jug mais voilà voilà loolu daal lañuy kaas waaw association tailleurs yi Thiès yi nag ñun ñu ngi si biir waaw di leen tàllal loxo ah ñun it buñ ñu tàllalee loxo tamit ñu ngi leen di teg loxo man mii di wax ak yow membre laa si association bu moom a sekk jiite regroupement des tailleurs membre laa si et puis dama bokk si membre fondateur yi depuis temps Ndiaga wàdd laay ngom bopp moo Modou Seck nii lépp sama loxo ngi si biir amul li ñuy laaj si mouvement bi. ma yëg ko bi le 16 la le 16 à partir de di h dem ba 20h date bi loolu la quoi waaw lieu bi lieu bi fee la conseil départemental de Thiès waaw ñu ngi leen di ñaan nag képp ku si mën a teew na si teew tele bii nag sunu télé la tele bii dama koy wax saa su ne sunu télé la waaw tele tailleur yi la mais dama naan man du ma ni télé tailleur yi dama naan télé artisan yi la képp kuy artisan menuisier métallique mécanicien beeg ñëpp tele bii mooy sa télé la preuve mooy lii mënoon nañoo dem ay kees TV feneen ak feneen mais duñ ko def boo leen ñu laajoon un million it buñ ko amul dinañ fexe négocier ak yéen ba ngeen defal ñu liñ bëgg di leen jaajëfal di leen wax ci kaw ci kanam yal na jàmm yàgg.